amet nag wax ci moom lu jafe la pour man ndaxte nit ku la jël def la kom doom nit ku la jël def la comme jarbaat nit ku la jël def la comme xarit nit ku la jël def la comme confident bu fi jógee ban nga wax ne ñàkk nga lépp waaye ñàkk nga lu bari kon nag yàlla na ko yàlla xaare àjjana te yàlla nangul suñu ñaan ci moom te yaakaar naa ni amet ku xool li mu doon sonn pour doomu aadama di ko sonn pour njaboot di ko sonn pour Sénégal di ko sonn pour Saalum gi nga xam ne nii ci xolam la nekkoon mën nañ am yaakaar ne yàlla bu ko fayee loolu Ameth dina tàbbi àjjana yi gën a kawe ci àjjana yi kon nag bëgguma guddal wax ji li mu war def rek mooy ñaan yàlla bi nga xam ne dara tawu ko te kenn mënul xëcc ak moom mu làqal ñu amet aaral ñu ko ba li mu liggéey ci àdduna man ko fekk fa mu nekk tey lii ngeen ma defal nag du ma dugg leen ndaxte amet moo ko yàgg def fu moom mës a nekk daf may jël wane ne man doomam laa ba barki démb rek ma ñëwee fii ci tour de kaa yëpp toog ak waa Mboyeen yëpp toog mu ne leen maa Malick gàkku day sama doom la moo tax bi ñu créé grand parti dafa bàyyi lépp ne ma nag moo neveu comme tànn nga sa yoonu bopp léegi dinaa ñëw ànd ak yow bëggatuma dara waaye dinaa leen wan yoon di leen conseiller di leen digal loolu la nekkoon ak ñun ba le 7 bi passé rek même pas 20 jour mi ngi toogoon sama bureau ñu nekk réunion bureau politique du parti bu toog sama wet nii. di wax ak ñun di ñu conseillé di ñu digal ba yàlla def li mu def tey kon nag Ousmane maa ngi la koy jàll yow ba ñu amet boolee ba léegi ci ko Kosapat ma nekk élève nekkatu tànk bàyyi wooñu ci say conseil ci say digal ak yaakaar yi nga xam ne ñoo ko bokk amandoo ko ngir Sénégal yàlla na ko yàlla mottali